bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ñi ngi ànd ak yéen ba tey ci qissatu umayr ibnu saad bi nga xamante ne bii seydina omar yabal na alxaaris pour mu ñëw def fa ay fan xool ba xam lu mu tooge ndax dafa am lu mu toogaale ci alal walla boog njub gi muy wane mi ngi ci moom walla déet waxoon nañ leen ne xaaris bi mu demee ba gis ne kii mi ngi dund souffrance bu metti indaalewul dara mu yëkkati alal ji jox ko ko inda dalik axraja alxaadi xaarisu niira wa dafaaha ila umayr mu jox ko ko faqaala umayrun ma haadihi umar na ko lii lan la faqaala alxaaris baasa biha ilayka amiru lmuminin seyduna umar moo la ko yónnee faqaal ruddaha ilayhi waqra alayhi salaam wa qul lahu laa xaajata li umayrin biha delloo ko ko te nga nuyul ma ko ne ko awma ci soxla fa saaxat imraatu wa kaanat tasmacu maa yaduuru bayna zawjiha wa fi soxna si mu ngi doon dégg waxtaan wi dox diggante boroom këram ak gan ci mu yuuxu ca kaw yuuxu ca kaw wax boroom këram ne ko xudha yaa umayr jëlal alal jëla kilifa gi yónnee fa in ixtajta ilayha anfaqtaha wa illa wadactaha fi mawaadiciha falmuxtaajuuna huna kathir mu ne ko jël ko boo ko ajoowoo nga def ko fi nga ko war a def bu fekkente ne bii nee nga doo ko lekk nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ndax ñi sonn fii te aajowoo ko bari nañu lool falamma samica alxaarisu qawlaha alqat danaaniira bayna yaday cumar wansaraf bayna yaday cumairin wansaraf bi xaaris déggee waxi soxna si mu jël alal ja teg ko ci kanamu seydina umayr teg dem yoonam fa axadaha umayrun wa jacalaha fi surarin sagira walam yabit leylatahu tilk illa bacda an wazacaha bayna dawi lxaajat wa xassa minhum abna alshuhada ba mu demee sayiduna umayr jël alal ja def ko ci ay mbuus yu tuuti surar jamcu surra walam yabit laylatahu tilk illa baada an wazzaaha bayna dawil xaajaat xaalis ba fanaanoowul ak moom mu seet ñi nga xam ne bii ñoo ko aajowoo mu séddale leen ko ñam ca gën a bàyyi xel ñu ëpp la ca moo ñi nga xam ne dañoo dee ci toolu xare yi bàyyi fi njaboot mu jox leen ci seen wàll aada alxaarisu ila almadina fa qaala lahu umar maa raayta ba xaaris delloo madina sayduna umar ne ko xaaris loo indaale loo gis loo teg sa bët fa qaal xaalan shadidatan yaa amir al nit ku sonn nekk ci situation yu doy waar fa qaal adafacta ilayhi diin danaa ndax jox nga ko alal ji fa qaal naam yaa amir al jox naa ko ko mu ne ko waaw wa maada sanaa biha lan la ca def fa qaala laa adri xaw ma wa ma adunnuhu yubqi li nafsihi minha dirhaman waaxida xaw ma lan la ci def de waaye daal wóor na ma ne du ca bàyyil boppam benn dirham wala benn diinaar fa kataba alfaaruqu ila umayr يقول إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل عليه bu sama téere bi agsee ci yow sama lettre bi bul ko jot a teg ci suuf lu dul nga ñëw wuy si ma tawajjaha Umayr ibnu Saadin ila al Madina Seydina Umayr naka la jot leetar bi rek dal di jubali Madina wa daxala ala amiril muminin mu dem dugg ci kilifa gi fa xayaahu Omar wa raxaba bi Seydina Omar nuyu ko yaatal ko wa adna majlisahu na ko toogal ci sama wet summa qaala la mu ne ko maa sanacta biddanaa niiri yaa umayru alal ji ma la yónnee woon loo ci def fa qaal wa maa calayka minha yaa umaru bacda an xarajtaha lii canha loo ci amati loo ciy toppatoo gannaaw ba nga ko génnee jox ma ko ba noppi seydina omar ne ko azamtu aleyk an tuxbirani bi ma sanata biha duma la bàyyi mukk lu dul nga wax ma alal ji ma la jox foo ko dugal loo ci def omar ne ko iddaxartuha li nafsi li antafica biha fi yowmin laa yanfacu fiihi maalun wala banuun feret laa ci def dama ko dencal sama bopp ngir jariñoo ko ci bis boo xamante ne bii alal ak njaboot du fa jariñ kenn dara fa damaat ayna omar sayduna omar rongoñ ya fa qaal ashhadu annaka min alladina yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa maa ngi seede di seddaloo yàlla na yow mii de yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne lu ñu am te gis ko ko soxlawoo mën nañ ko ko jox toog ñàkk ñi nga xam ne dañuy ëfle walaw kaanat bihim xasaasa doonte am nañ ci aajo foofu nag mbokk yi ko fa àggul sa mbaax des na al ithaar wa yuthiruuna ala anfusihim waaw am daraja tabe ci am alal tabe ci am xam-xam tabe ci am juddu bu rafet tabe ci am rang social boo kawee ci biir penc mi kawe ci yàlla yëkkati la ba ca kaw nga jël cër yépp jox ko nit ñi toog dese garaat la am na ñu ko yàlla may nag waaye am na ñoo xam ne seen cër duñ ca xajal kenn loo ca coppati lu mu tuuti tuuti ñu jëflante ko ak yow loolu nag mbokkul ci bokkul ci mbaax laysa min karamin nafs wa laysa min makarimil axlaaq waaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo gënoon a kawe ñépp gënoon a baax ñépp waaw làq na cër yépp waaye kenn yemul ak moom ci wàcc wa xaaza ma xaaza lakin laa yumaathalu min tawaaduin wa xushuuci alqalbi wa ratami sidna nañ ko jox juróom benn fukki saa te moo di sëfu gëléem ca jamono booba ci lu mën a lekk ak ñaari yére sayyiduna umayr mi nga xam ne amul lu mu lekk mu ne ko amma taamu fala xaajata lana biha ya amir al muminin juróom benn fukki saa yi nga wax muy sëfu gëléem soxlawu moo ko bàyyi ko fi faqad taraktu inda ahli saayni min sha'ir bàyyil naa sama njaboot lu tolloog ñaari saa ci sha'ir wa ila anna kullahuma yakunu allahu azza wa jalla qad jaana bi rizq yaakaar naa ne balaa muy jeex yàlla danañu jox leneen lu ñu lekk wa amma thawbaani fa axuduhuma ñaari yére yi nga joxe danaa ko jël li ummi fulaan ma jox ko sama soxna faqad baliya thawbuha wa kaadat taara amatul lu mu sol yére yi mu am yépp ràpp na kon dana ko jël pour ma yóbbul ko ko mbokk yi kooku mooy Umayr ibn Saad ci màndute ci liggéeyal nation goo xam ne gi cellte moo ko lal lam yamdi tawilu waqt ala dalika alliqaa bayna alfaaruqi wa saaxibi xatta adina allahu li umayr ibni sacdin bi an yalxaqa bi nabiyi wa qurrati ayni sayidina alxabibi almustafa muhammad ibni abdillah salawaatu allahi wa salaamuhu alayh bacda an taalat ashwaaquhu ila liqaayi tuuti la ci teg gannaaw ba ko yàlla mayee daje bu sell boobu daje bu historique boobu daje bu symbolique boobu diggante sayidina omar al faruq ak àndandoom bu tedd boobu di umayr ibnu saad ba yàlla ñëw ak ay mbiram sayidina umayr àppam war a jeex mu war a fekki soppeem ba xaritam ba sang bu tedd bi nga xam ne mooy nagu bëtam di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk na moon na ko lool moom ragalul woon wuy ji boroomam ndax lool na dundam teg na ko fi mu ko war a teg ndax am na lool ku ca nekk doo ragal fa nga jëm ndax daf lay wóor ne moo la dàqal fi ngay bàyyi ko bu fekkee ne danga taq mel ne man tilim mel ne man bari bàkkaar mel ne man sa xel du dal ndax daf lay wóor ne tilimal nga say page taachal nga ko ci wàll yu bare bare bare bare bari te xamuloo ndax yàlla jéggal na la wala déet moo tax doo bëgg a dem mukk waaye ñii ñooy gaañ ñii ñooy royuwaay yi nga xam ne yàlla ngi wax ci seen xaq ne walladina jaahadu fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal muhsinin ay royuwaay yu tedd lañu yoo xam ne njaboot mën naa roy ci ñoom pour defaroo ci ñoom xam fooy teg sa tànk moytandiku bu baax a baax a baax a baax fa madaa umayrun fi tariqi al axira waadica annafs waafiqa alxatu laa yuthqilu kaahilahu sheyun min axmaali dunya wala yauudu wahrahu cibun min athqaaliha mada laysa macahu illa nuuruhu wa hudaah wa waracuhu wa tuqaah seydina Umayr dem wuy ji boroomam ànd ak xel mu dal tànk yu dëgër wóor ko ne teg na ko fi mu ko war a teg amul benn yan boo xamante ne bii diisal na gannaawam bàyyiwu fi lu muy sonnale kenn kuy jàll te yoroo bagage booy ñëw da ngay jàll génn boo yoree ay valise yu diis boo dikkee il faut ñu ne la ndax am nga loo war a déclarer wala de moom yóbbaalewul dara lépp daf ko jiital ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa acdama ajra lépp jiital na ko def ko muy dawalu yiw bu demee fekk ko fa ñu paketeel ko ko lépp nekk ay xasanaat yàlla fulal ko ko mu war koo njeganaayoo ci biir bàmmeelam ci biir ba barsaxam ba keroog yàlla di ko ko lemmil muy siraatam nag waaw muy pont bi nga xam ne moom ci lay jaar pour war a dugg àjjana waaw ndax xasanaat yi am na nu muy demee booy jéggi siraat yi bu woyof ngay def am na ñoo xamante ne bii diggante xef xippi am na ñoo xam ne kal barqil xaatif am na ñoo xam ne malaaka yi ñoo leen di jàllale ndax booba fekk na liggéeyal nañ yàlla lu baax loo xam ne mën na leen a may cër boobu yàlla nañ ci yàlla boole mbokk yi mbokk yi njàqare yowmal qiyaama yàlla nañ ci yàlla boole musal yàlla buñ fa fekk lu dul jàmm yàlla buñ fa fekk lu dul jàmm yàlla buñ fa fekk lu dul jàmm yàlla nañ yàlla musal min xisyi dunia wa min cadaabi alaaxira wa suu il xad falamma balaga alfaaruqu aw falamma balaga alfaaruqa nacyuhu nacyu bi mooy ba mooy faacilu balaga ay falamma balaga nacyu cumayr ibni sacdin alfaaruqa mooy mafculun bihi mi mafcul muqaddam la falamma balaga alfaaruqa nacyuhu wa shaxa alxusnu wajhahu wactasara alasa fuaadahu wa qaal ba mu ko bañ ko ko tàggee xar kanamam nga xool ko xam ne am na lu ko gane xool ba itam wóor la ne am na lu ko gane ndax ñàkk na élément boo xam ne am na am ku mel ne moom ci biir pénc mi dootul yomb ci la waxe waxam jooju nga xam ne moom lañu ubbee woon waxtaan wi mu ne wadittu anna li rijalan mithla umayr ibni saad astaciinu bihim fi acmaali almuslimin yelloonte woon ak neexoon ma am gaañ yu mel ne umayr ibnu saad may dimbandiku ci ñoom ci gérer alalu jullit ñi astainu bihim fi amalil muslimin di dimbandikoo ci ñoom ci seen mbaax ak seen njub man cee gérer alalu jullit ñi radiyallahu an umayr ibni saadin wa ardaah yal na yàlla yokk ngërëmam moom Umayr faqad kaana namatan faridan bayna rijaal royuwaay la woon ci diggante gaañu baax ñi wa tilmidan mutafawiqan fi madrasati sayidina muhammad ibni abdillah sallallahu alayhi wa sallam élève la woon taalube la woon boo xam ne amoon na ndam ndax ci école Seydina Muhammad la génne alayhi salaatu wassalaam te ña ca am mention honorable ca la bokk moo tax mu mën a am lii mu am mbokk yi lii aslaf la woon ci dundu Seydina Umayr taxawaayam ca ba muy ndaw gis ngeen ko taxawaayam ci bi mu nekkee mag ba yore ay cër ci biir réew mi noonu la ca taxawe taxawaay bu rafet boobu ba yàlla woo ko mu wuy ji boroomam bu ñu yàlla mayee incha allahu taala ci ojo yii di ñëw ci kaadaru nafar bi ñuy nafar suurat at tawba danañu wax baytu maalil muslimina fan la doon jële alal joo xam ne moom la doon géré kilifa gi di ko géré ci biir réew mi ngir mën cee taxawu jaamu yàlla yi waaye loolu yépp ñu ngi koy defee ci kaadaru suurat at tawba ndax yàllaa ngi wax naan innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiin wa aamiliina alayha kon bu fekkente ne bi azaka yi juróom-ñett yooyu ñoo ko moom te état islamique soxla na alal fan la war ay mawaaridam yan la war a doon ba ñu mën a geere alalu jullit ñi ba ku loru ñu mën la dimbale ku xamul ñu mën laa jàngal ko feebar ñu mën laa faj ku soxla ñu mën laa dimbale ndax stabilité am naataange am xéewal am hada wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu